may toog sama télé bii di seetaan mbër mbër bëre ma ma man naw ko si lu mu bëre mbër ah, mbër ah, mbër bëre ma découragé kon Diène Kaïré tey faraluma fara faraluma Diène Kaïré comprendre na xëy na am nañ jàmm rek xam na may gis toogam moom kon si tamit xam naa bëreem waaye tey Diène Kaïré bu ñu ko teewuloon bëreem dina bëre leneen du loolu. kon su déggee kon moom dañoo téye Diène. dañoo téye parce que tamit xale bu ndaw dafa ñëw conseil nii nii nii dëgg la waaye tey dëgg la mbër tamit day am conseil waaye man jéen pour man bu demee tuuti demaa tuuti bu gisu dara day def lu mu bëgg te bu defoon lu mu bëgg am lu mu bëgg loolu. yow doo taxaw noonu. non bu doon man la dinaa dégg sama conseil si waaye après man maa jël sama responsable xam ma defee am ndam te yow xam na ni yow bu defoon loolu am ndam loolu la rek. tas combat bi ah oui toppal ma ko niin ooy ñaar ñii niin nañu bu leen fi wax yéen kay amu ngeen dara lu ngeen wax nag yéen yaag yaag Quench yéen kay noppi leen rek mel leen ni ñuy fotow la ngeen waxoon defu ngeen ci dara moom te neex yàlla xoolal xoolal lu ngi fi jari wax yéen kay bu leen waaye yéen bu leen wax waaye noppi leen waa ñi waruñoo noppe amateur ya war a kaas ah way day jeex xoolal day jeex taala xaaral may xew ah way mat si aa ah non lii rafetul waay waay delloo bëgg moo tax mu të ah waaw xam nga waa ji dafa taxaw ak première action bi am sax man maa man maa sànni ku droit mu mu jàpp ma pour bëre mais taxaw rek pour jéem lii la lii la askan doon yéen ah man man li ma waroon def naa ko de yàlla xam na ko. parce que dañoo gis combat bi. mu mel dox naa ci kawam saa yi ma ko jegee mu teggi taxaw. parce que yow dañ daan gis ngay xeex say combat mais combat bi dañoo gis nga mel ni ku ñu. mais mais da ngay xeex ak ku taxaw. da ngay xeex ak ku taxaw. mais doo xeex ak kuy daw. koo xam ne sa saa yi ko yëree mu daw pour lan ngeen asaaloo sa combat. ngeen gis ngeen. jàppale ne ko ruuma kii di yàq combat am du liggéey ba fii di yàq combat kii mooy yoon làmmiñam du wax yoo xam ne dafa wan taxaw dëgër boppam kii action yëpp kii moo ko def waaw waaw yàq sa bopp. sant maa si mais combat bi lan moo ko tëj. ba ba tax mu niil. dama ne la woon maa ba doole maa daax a bëre maa daax a xee moom nañu ni liñ ko xamee comprendre nga ñëw naa nanguwul bëre nanguwul xee jàppante nañu mu jegi maay def ay risque ba na daaneel sama bopp daam maay siyaar naka coono yi dara waaw def nga lépp grand yow kenn du yow yow tamit yow tamit def nga lépp inshallah oto yi kii moom ak a may oto yi bëre yëpp kii moom kon ni ma doon jëlee risque kon combat bi du niil dinaa préparer sama combat ay huit mois quatre waaye loolu du ma la def waay maanaam kol yow daal nii tey dafa ragal xeex dafa ragal song bi ma la xeex yéen xam ngeen ne kii kii ngeen gisoon jën kere mi ngeen gisoon amee du benn jën da ngeen ne moo ma ba poids moo ma ba doole ñu ñëw jàppante première nanguwu jàppante waat xam na leen fa fekk doole à poids bi kii fii la jaar kii jaar fii nay bàyyam naka bàyyi mu bëree bëri xale léegi foo jëm fu ma jëm ah man xamaguma fu sax waana non a yow mel bi rek moo yow saa daa bëgg indi mel bi rek saa yu saa yu wala gëmbee nga daw waay barke alxuraan kenn du caaxaan foo teg loo si yàlla laa ko teg yéen na doole la wala yàlla ko ëpp ku ma ko jox ma dum ko jën kaare ma la ko jox barke alxuraan kenn ku ma jox jën kaare ma dum la ma def si làmb xeetu ma def benn fi am léegi diggante jën ak Quench amateur yi doon ko xaar mu mujj ci match simil yow en tant que technicien combat bi ñu ko tëj. combat bi ko moo di les consignes parce que lamb dafa am lu ñuy wax garde haute garde moyenne garde basse garde à droite ou bien garde à gauche damay dégg di ñuy ay poste garde poste ci boxe la ñu ko gën a xamee mais ci bëre nit ki bu tëjee pied droit nga teg pied gauche. kan la avantage loolu laay laaj parce que distance ñaar temps yi ci biti dafa jegeñe ñaar yi ci biti dañoo sorente donc ku ñu jëloon initiative mooy angle d'attaque ak distance d'attaque loolu moo doon différence bi pour mën a jël initiative déplacer yow sa corps sa centre de gravité moom ak centre de gravité am mu am centre de gravité bu leen boole moo ñuy wax centre de gravité du coup tey. bu doon jéen wala mu coince ku jëloon sa tànk bi ci biti jiital ko foofu di nga am effort de force di am poste de manœuvre pour travailler li nga soxla mais ñàkk initiative boobu moo tëj seen combat d'accorduma tey ñi naan tànk bi mu teg moo ko moo ko gêné kan la gêné parce que ñoom ñaar ñëpp ku si nekk dafa am sa fort donc deux forts seen animation offensive moo baaxul seen animation défensive baaxul parce que ñoom ñaan ñëpp. ku si nekk da nga taxaw fi nga taxaw essayé benn initiative tey su ma doon avertir dama disqualifié parce que sur les dix premiers rounds am nañu trois avertissements ñu ñëw ci prolongation yi am benn quatrième avertissement ñu bëre cinq minutes mu jeex logiquement la arrêté avertir disqualifié donc machine bi waru fa woon am. kan la ñu disqualifié ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar ñëpp dañuy disqualifié donc c'est le combat donc ça ne compte pas sur le résultat. règlement bi bu ñu jàng ko fa ñu mën ko jàng bu ñu xam ko mais tey seen palmarès dañ naan ma suñu la fa am waru fa am dañuy war disqualifier parce que l'attente bi am diggante xaar bi ñu xaar ba ba léegi li ngeen bi ñu ñoo andi lii c'est